cho ai ô trong nó mạnh đâu mà kain gemuk memang reptil itu kini crown ada abram mes ka xam nga daf ma fàttali yaa nga fàttali bi ñu demee waaw waaw mooy biñ gën a nekk xale noonu di nga dem parkaan te dem ci gaynde gi après gaynde gu góor gi di la xool na la oh ma la maram dama lay firé kii bul gaynde bi dama dem ba man maram nan ko gaynde gu ko bu baax rek ak golo gi di yóoxul noonu ngay dox nga koy jox koom bi borom ak ay yàgg tàppan nag Eh, <laughs> ak jour yaa ngi fàtte am na boo xam ko jour bi lay njëkk wax jotem yaa ngi daw ba yëg ko garaw yaa ngi fàtte bi nga daw ba yëg sa garab maam bi <laughs> rek ma dem ko ci daw ma di nga daw sa bi <laughs> yow nga quoi ko lu baax yow waaye bu fàtte am na yoo doon def non ma dem yow dem toose waay waay waay bu dugg sama mbir am na yoo doon def comme yaa yaa ngi fàtte amoon bokkoon nañ classe lycée waaw amoon na ndeysaan benn élève boo xam ne mi ngi tuddoon baaba Babacar Sonko nga <laughs> ngay soo kaa ragal. <laughs> doo changé wax beneen waxtaan quoi beneen amoo beneen anecdote <laughs> maanaam da ngay déggoon quoi muy garaawul baal di faaw yooyu naa la ko dégg nga. si baal ma maa ngi jéem mais mhm. wuy na mi nga sol nag maanaam da ngay déggoon yow ñu ngi tere ne bu kenn solo te affaire bi te doo am de loo boo ngay sol ay mbaxane quoi. Ah. xam da nga da ko ne baal loolu. xam nga lan la bëy bu ndaw lu mu def lu ne ci bëy bu mag la ko gisee sa tubéy ji nag ah. kon man tamit ah. la rek. bi bi ñuy la rek bii tamit tay baal defante loolu baaxul. defante ma dama la wax ne quoi yow. su yow man lu ma def si yow laa ko. Ah, dawal jaataay toog toog fële da ngaa bëri defante trop. <laughs> dégg nga maa léewal nag. ma léewal la benn léew. benn rek. non da ngay fay da ngay fay. bu ko def comme bu keroog man. non léew bu neex mais da ngay fay de. waaw léewal ma. ma léewal la. waaw léewal. lëppoon amoon na fi daan na am. naana. daan na am. waaw léegi léew bu dafa neex de. waaw xanaa benn kilo woon nag. xam nga benn dëkk bu tàng la woon tàng tàng dëkk bu tàng jër léegi dëkk bi mu tàngee nag dëkk bi dafa tàng ba xale yi bu ñuy tëdd mhm. bu ñu tëddee guddi mhm. dañuy jël fëriñ bu mhm. tooy defal leen seen loxo bu ñu ko ngëbee ah xam nga bu ñu yeewoo lu ñuy gis. Mhm. beñe bu bees tàq ndax tàngooru dëkk bi yi bu ci xëy loola nekk sa beñe dëkk. Mhm. dañuy xëy rek de bu ñuy tëdd lañ leen defal fridge bi noonu ñu téye ko ndax dëkk bu tàng bu ñu yewoo ku ne sa beñe dëkk yaa koy téye foofu lay ñoree. neex na ah? <laughs> doo reetaan tuuti sax pourtant bi ma ko lébbee parcelle sama gars yi gars yi dañu ree bay bëgg a téye wër na yàlla dafa garaaw rek. noonu demee ah léeb la rek léeb moom day garaaw ba mu bàyyi <laughs> doo ma léebal nag ma dem doo léebal yow xamoon dara ci léeb waxal benn. génn sàcc la woon. ah <laughs> ay sàcc bi. ay ah. rasta la def. waaw yow daal ay njaago jàpp sàcc bi <laughs> rasta <laughs> sàcc ay njaago jàpp ko. peñe ko ba ba mu dee. loolu la loolu la xanaa dukkure la. <laughs> Ah, ah. maram yow. maram da nga garaaw quoi. moom suñu man lañ daan teg may lépp. non yow da sa borom lépp dafa neex. may léeb léeb yoo xam ne. <laughs> man kay dama daan dama daan. Ah, <laughs> maram dama daan xoolal sàcc bi. sàcc bi dem dugg ci benn kër di sàcc jeex na beneen la sàcc bi dugg ci kër gi amul lu mu sàcc rek mu bureau bi ne di daw waaw oh, ñooñu ñaar lañu war fay facture ndox oh, <laughs> maram du ma quoi doy na maram bu dolli beneen lëb doy na sëkk waay nag non non non non doy na doy na non doy na doy na doy na s'il te plaît tam mënu ma dëkk waaleykum salaam waaleykum salaam dal mbay sall garmi buru gede mbay mbay ma ni siar ma dëgg li lan la ah, maram rek mooy génn ci innovation li nak nak mooy pied dans l'eau ci lu ma neex ci yow fu ma neex ngay génn mooy mhm. kontaan naa ci li dala jàmm fan laay toog yaa de loo de waaw non <laughs> ñu ñu dundee xanaa ñu def ko rek pour da ngay sa xanaa ñu def ko rek pour tey yaa ko jar waaw musuma dugg ci piscine nan ñu wakasu rek garaaw man def loolu ne de maa ngi ci biir waaw d' accord macha allah mënoo ñëw toog nii. may ma may ma léwal rek man moom ma kenn. non non bàyyi ko mu ataayal boppam. mënuma di bokk ak yow ataaye mënul nag. non non non non non non non. dama nga taxaw sa place nga toog Sall xam nga dama am privatisme. waaw non lii piscine bi dama ko dama ko tàngal dama ko tàngal. dëgg dëgg du ma arrangé de. non y' a pas de souci dama ko tàngal dugal. bu xasee wax rek mënu dara yow yaa ngi ñëwaat demal looy def ci biir piscine bi man ni ko du jamais vu may ma tuuti garmi demal nga liggéey sa liggéey s'il vous plaît xoolal mu mel ni ku jaar ci déeg li piscine la ngay capax capax comme ça xale bu am jom la nag mais dafa dëgër bopp boo ko fekkee ci buntu bi mbay jom rek la dëgg la gar mi na nga maa ngi laa ziar yaa ngi am jàmm baax sàll ngaar yi lam tooru buru gédé ah, fay tey felt nga dóor felt dëgg dëgg rafet na de rafet na dëgg dëgg mbay xam nga nag dama am rhumatisme Ah, waaw même bi bi bi grawul parce que dañ koy dañ koy nuggal gis nga xam nga dañ koy nuggal moo tax waaw c'est programmé dañ koy nuggal des fois il faut ñu ci baax divertir <laughs> moom noonu la mel eh, ndeysaan diwee nañ ko ku baax la <laughs> gore ndeysaan bëgg doomu aadama mm-hmm. mm-hmm. dama laa seet si <laughs> dëgg dëgg mbay pour ñu waxtaan ndax géwal mooy kin daan géwal mhm. muy wax lu baax waaye di ko def lu mu mës a gis ni njiitam bu fa demee suux mu baare ko fa ba mu rafet mhm. du wax lu ñaaw te du ko jëf mhm. géwal bu njëkk ma ba tey ñu doon ko suñuy maam loolu may waaye dëgg-dëgg ma gis ñu lu ñu ruumandaat di ko wax mu nekk lu ma métti loolu nag fu ñu koy ñu koy ngawti ngawti man ku def loolu ñu dëgg-dëgg nag tudd sa tur man leen loolu du ko def loolu mooy yaa ngi fàttaliku ki nga xamante ni bii mooy alaaj Basirou Guèye bu baax mi léegi. kon na procureur procureur alaaj Basirou Guèye bu ah, baax mi léegi <laughs> ah procureur nga jël ko. waaw yóbbu ko palais. waaw ñun ñëpp ci kontaan. Ah, mais moom moo war. mais c'est normal nga jël ah merci beaucoup nga jël Amadou Diouf. def ko postam. jox ko postam da nga lay naan loo ma jox ma naan ko. <laughs> loolu loolu loolu saf kii rek laa doon naan. maram kaas nga de. ataaya nga. nawoon fa woon. dëgg dëgg dama bëgg prix su waxtaan ak yow. maa ngi leen dëgg maa leen dëgg maa leen dëgg bu garam bi gërëm yi ngay def yëpp maa ngi ko dëgg waaw. waaw koy xel mais li bëgg mooy nga jël Amadou Diouf yóbbu ko ci poste bi nga xam te la du de li ku ne ko Ousmane Diagne procureur général nga ko nga xamante ni xale bi ñuy coowal am xam fu ne ñu ngi ci coow muy Barthélémy Dias mbay biñ ne biñ ne def na danga di deful moom mu ni def na El Hadj Ousmane Diagne def na nga nga jëlee ko poste boobu lii tey bu ñu doxee jamono di dox di dox mbay ba ba ba coow amaat yëngu-yëngu nga ne dëgg-dëgg nga tabbu El Hadj Ousmane Diagne palaasam bi mu nekk mbay loolu nag dëgg-dëgg laa xam mooy lan. du samay wax nag ku nekk xale yi laa dégg ñu koy ruumandaat rek di ko wax waaye dëgg-dëgg loolu jaaxal na ma lool dama xamul nag lu ci jublu te ñun say jiwul lañu lu baax. lu euh, baax la ñu karam yi da a wax ñëw ci kër ga ba léegi yaa ngi doog dama lay poser question quoi maanaam dama la bëgg a laaj yow ba xam journaliste nga wala géwal nga wala chroniqueur judiciaire nga. mais yow tu es kii ban télé ngay liggéey. ay giwul luñ di la wax lu baax rek mbay du am vision bu la sori nag di xool fi nga fi nga war a teg nii. vision bu sori wala dañ ko bopp nettali jëko jamais de la vie kii nettali du giwul hmm. déedéet kuy nettali nga ci cadre giwul giwul day wax baax ki nga xamante ni moo jiitu di ko wax di ko wax di ko ay maam di ko waaye di ko teg ci yoon dëgg-dëgg ñu ay pousse nous sommes des puceaux ñëw rek mbay diggante yi <laughs> ma dafa dafay rey sax ah, mu naan la gën a def dama xaw a déglul ci lu baax ak léegi déglul duñu mos a wax lu ñaaw duñu ko jëf. xanaa li nga wax ëpp na de. nii xaw ma loolu li nga wax ëpp na de. garmi griot VIP. garmi ci mu wax ni lu garaaw la de. très bien xool garmi. mais li mu mel ko neexoom kooku yaa ko sañ. mais li nga wax gën a garaaw mais analyse bu bu gaay dédé li du analyse li nga li nga laaj lijeunte ba leral ko du analyse xalé ko wax de xolal yow xoma da ngay analyse xoma espion nga nan puso sa kanam gu melé len set nga nan puso dama gis muy ram rek tam ma xamné nak deug deug bu yéké ci ñak dootu ñu ko bëgg waye man lu dox réew mi rek la bëgg bëgg la lool ñepp xam sa kër gi amu fi amu foroñ amu fi ki sans intérêt mu hmm. ne fay mu ne fay ki ko na deug deug yéena mako may waye deug deug man lu bax rek la bëgg ci yow nga dox réew mi lool analyse bobu gaay ko def yow loolu di raam muy wax moom yee raam di ñëw ci ñag bi di moom yow la déedéet yow la kon xamoo leen ñag fii lu fi génn yaa ko génn parce que yaay ñëw yaay génn semaine de la vie rencontré lu ñu wax fii ma génneew kooku géwul du ko def musuma koo def wax lu ma ko def dëgg-dëgg waaye nag du loo xam ni garmi daal franchement man wax non franchement musuma wax lu ma gëmul man daal peex laa ci yow moom ñementuma la france comme yaa nga génne kàddu yu mel dama jëm a sosal jëm a géey mën nga dem mën nga dem ni la peex waxal kon génn ci moom pour wax la damay garder damay garder secret bari na su ma waxoon réew mi réew mi toj waaye dëgg dëgg yi ma xam dëgg sama tànk xamul dugal dugal nga dem dugal yow yaa wax loolu moo ko wax Mimi Touré moo ma kii mi yàgg ajaratu Marème ma ne ni nga meloon ci baax ci gore dëgg bu lu ci bu lu ci dara di di man hôpital yi fu ne nga dugg fa joxe di dimbali ñu wér ñu wér ak ñu wérul dëgg dëgg loolu bu ci jëlee di ce que tu fais c'est pas c'est pas. lamu yi moo dàq taatu yamb boo ko dégloo mu kii la jugal. dëgg dëgg lu ma nga naan jugal mara bu ci reetaan boo reetaan du du ko jëloo. yàgg naa leen lemal baal bu ma nekk ci débat bu Sérengare jugal laa wax sa lamu yi dàq taatu yamb sor. su ma nekkee taatu yamb sor waaw dama déglu de vraiment sor dama déglu. ku toll ni alaaji mbay alaaji alaaji permi nga naan ko say lamu yi dàq taatu yamb yéen su ma nekkee taatu yamb yàgg naa leen lemal tey ngeen bëgg suukar rek ay dëgg dëgg yàlla leen lemal de. erreur la mu def quoi parce que kii jugal kon damay woo Daba sax jugal jugal. histoire kenn dara de as gor seet si la di wax ak yow ci lu jëm ci réew mi pour lu ko doxal ma daax ko. day mbay di di El Hadj Baye Cheikh bu ko yëgee du ko gëm de. li ngay wax la sa yoon nekkul. kan mooy Baye Cheikh. El Hadj Baye ma ko mosaan waxee ni ko dëgg-dëgg ci ci ci Macky Sall laa mu ni ma demal te sa waay la waaye dëgg ma ñëw fii ma toroxal ma ni nga ma toroxalee l'histoire retiendra dañ kumpa rek moo la fay demal xamoo luy dañ kumpa de man kumpa ma dañ te làmmiñu nag loo wax mu tontu la. nga xam kii. li naan ko yëgal de li ngay bañ dina am de xaw xam ko nag. li ngay bañ dëgg dëgg dina man damay gën wala dama war a dama war a rek. de man de rek la bëgg loolu rek jël si woon xamoon naa ko fii yow nii lan moo si yoonam. kan moo ko wax loo ba muy ñëw di wax ah waxoon naa la limiteel garmi Sénégal nag Sénégal nag mi ngi bëgg a ràjjal parce que bu demee ba géwél yi nekk ay chronique je te l'avais dit limiteel garmi je te l'avais dit waxoon naa la ko làmmiñ bee neex ñu ne nga dëgër bopp nga dëgër bopp mi ngi nii nag voilà ku yar sa kuy moom yow lay njëkk a mat kër gi bu ñëwee dugg génn dugg génn nga bàyyi garmi di def lu ko neex ci kër gi. mais dégg nga baax li mu wax dégg nga baax li mu wax bu baax li mu wax. maanaam dégg nga. Aliou wax dëgg la daa neexul waaye dëgg la de. waxuma la dëgg la wala dëgg dama la dëgg baax nga ma ah, eh, dëgg la nag du ma garmi de du ma garmi de dama lay wax lu leer rek du ma garmi li mu wax dëgg la neexu la bañ nii dëgg la nangu nii dëgg la du ma garmi nag comme d'habitude ak ah, comme d'habitude dangaa tuba yu ma tuba yu te tey boo ma ko joxee ñu joxante ko fii si piscine yow xam nga ma yow man de sant gi rek laa xam nga ma laa la wax moom kañ la war a rek sang la ah, wératoo xaa man maa négocier rek mais yow normalement war ma communiquer wax man waroo mat sax communiquer parce que wéroo waa léegi xam nga lan la wéeru góor sax laa bëggatul nga di ma ko wax nag parce que il faut que je sorte de ma réserve